asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 29 décembre 2020 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi sunu lamb moom fi mu xëy tey ñëw Balla Gaye numéro 2 ak Aziz Ndiaye daal la moom la xëy wan ci xëtam mu njëkk ñaar ñoo xam ne ni daal ñu nga ca biir géew ba yëglikaay bi nag na ne lamb des daal agent bu Balla Gaye numéro 2 bii moom di Aziz moom la mu xamle nee na Balla Gaye 2 mi nga xam ne moom moo di mbërëm daal pare na ngir bëre li nga xam ne nii moom moo di huis clos kon daal Aziz moom jàpp na ne huis clos moom loolu mën a nekk la moo tax mu jàpp ne mbërëm moom pare na ñu ne ko déet ne waaye Aziz ne waaw moom maa ko wax moo tëgg combat ak Bombardier di Gaston Mbengue ma jàppale ko ci wàllum sponsoring nee na daal diwum nga mu yor moom muy Jador da ko cay niinal bat ba mu nin ca bat nee na kon moom Aziz daal fi mu nekk nii moom pare daal dina koy def ngir engagé wu nag ngir la donkin mën a tëgg combat ba nga xam ne moom moo di Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier loolu mooy waxe ki nga xam ne nii moom moo di Aziz Ndiaye mel ni ki nag mbiri wi loo ma moom promoteur tamit daa mel ni daal fi mu nekk nii moom validé nañ affaire ba maanaam daal d'accord moom def nañ ko ka nga xam ne nii moom moo di Pape Thialis Faye moom jiite l'autoproduction la mu xëy xamle lenn na leneen li mel li des daal mooy fi mu nekk nii état bi na leen laaj la nga xam ne nii daal moom moo di seen ay budget ya xam ne nii daal moom la ñu war a doxee maanaam seen budget programme su defee ñu waxante loola xool mbiri nuñ koy defee pour mu jaar ci aw yoon jàk sa moom ba tey di ab promoteur daal moom itam daal na ci la nga xam ne nii daal moom moo di huis clos yëglikaay bi di sunu làmb daal moo xëy ñëw tey di wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ak yëglikaay bi nga xam ne nii daal moom moo di sunu lamb yëglikaay ba nag xëy na ba tey dinu xamal daal écrit ba nga xam ne nii wala boog ñi nga xam ne nii ki nga xam ne nii moom moo di xalifa ñaa jiite écrit ba nga xam ne moom moo di taay singa xalifa nag moom ke mu xëy dal ci kawam du kenn ku dul ministre bi ñu dénkee sport bi lam ko xamal daal maanaam moom mbooloo lay wut ci li nga xam ne nii moo di lamb ji rawatina la nga xam ne nii moom moo di mbir yi ci am jàpp na ne daal la ko war defu ko maanaam daal mbirum wuti nit ak wuti tur daal la mataar ba nekk fi waaye li ko war moom defu ca lenn leneen loo xam ne nii wala beneen écrit gi di boo xam ne nii moom yëglikaay bi daa xëy ñëw ci ñoom ci at yi nga xam ne moom lañ génne mu ñettat yoo xam ne daal écrit face yëglikaay bi ñëw na ci moom ak 23 21 victoire yi mu am ak 23 défaite ak benn mel ni ki daal face bu bëggee dégg dëgg moom seenu taxawaay ci làmb ji at yi moom moom def defu ko ko maanaam daal baaxul yëglikaay ba xëy na tey ñëw ci leneen loo xam ne sunu làmb ñëw na ci mooy rétro la def ci 2020 bi daal fa nga xam ne moo di Kaolack génnuk àddina Mor Ngeer ak ka nga xam ne nii daal moon moo di ki nga xam ne moom moo di Bira Sène ma nga xam ne nommé nañ ko mu jiite la nga xam ne moo di làmb ji ak ka nga xam ne nii daal moo di Alioune Ndiaye médaille d'or moom itam mel ki yëglikaay ba ñëw na ci ne la te ñu jël ko dénk ko la nga xam ne ni moom moo di làmb ji mel ki loolu lépp sunu làmb xëy na tey ñëw ci feneen foo xam ne moo di Papa Sow moo xam ne daal li ko marqué ci 2019 jàpp 2020 bi moom ñëw na tey di ko wax moom Papa Sow ci waxtaan woo xam ne seq na ko ak ka nga xam ne moom moo di Abu Ndour keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi di record xamal nañu ne daal la mu fas moom moo di ci mardi ji daal la fas yéene dem moo di réewum ki nga xam ne moom moo di rëg-rëg record a xëy ñëw tey dinu wax lu mel ne ki noonu leneen loo xam ne record xamal nañ ko ci rëg-rëg daal mooy le vingt le vingt quatre février bi la mu fas yéene jongante moo di combat MMA nga xam ne nii moom moo di ca Singapour ka ko soriwul dara dëkk ca Lansar jiiteegri Lansar du Cheikh Tidiane Niang moom moom la mu xëy di naqarlu wala ñoom ña nga xam ne nii daal ñoom ñoo yore écrit ak école di ay président daal la leen metti mooy négociation yi am bopp ba tey ci lamb ji jëm ci CNG beeg ministre baal waa mbër yaak maanaam ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy njiit ya jiite écrit ya kenn boolewu leen ca mu mel ni ki nag mbir ma moom naqari na leen ba yegg lool lool ci lool waaye daal loolu tey record moo xëy ñëw dina ko wax mbokk yi maa ngi leen di nuyuwaat di leen siyaaraat di leen ñaanal jàmm di ko sàkkuwaat ci yéen rek ni ngeen ko xamee tey nag 29 décembre 2020 ñu ñaan yàlla yàlla defal ñu mu mujj mucc gu ànd ak xéewal saxadatu daara xam nga dàqal ñu mbas mi di ñaan képp ku am jafe-jafe rek wala njàqar yal na ko yàlla teggil barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg ñëpp di di ñaan ñëpp jàmm tey nag xët wu njëkku yëglikaay bi di sunu lamb daa mel ni la fa nekk daal lenn la Aziz Ndiaye mi ngeen xam muy agent wu Balla Gaye numéro 2 maanaam Aziz moom moo xëy daal jàpp ne moom mbërëm di Balla Gaye ak moom Aziz pare nañu ngir wiklo ñu bëree ko Aziz nag fa mu ko na la jàpp na ne lu a mën ne la ba ca desit jàpp ne maanaam la mu yore moom ci société muy diwam nga mu amee muy Jador pare na ngir gunge Gaston Mbengue lu mu laaj ngir ñu def ko ngir bésam boobu nga xam ne ni moom ci la jëm muy diggante Balla Gaye ak ñu def ko loolu Aziz loolu la wax mel ni ki loolu tamit a ah, olof ne na daal te taal bu tëye tàkk côté bu ne lañ koy uppee loolu moom mooy li am il faut tam comme li ñu doon wax rek ñun ay solution defe naa ah solution yi moom bu état bi taxawoo promoteurs yi nga xam ne ñoom ñooy bayeeru làmb ji yaa ngi dégg sponsor yi ñëw taxawu leen defe naa su keroogee ah ñu mën a bëre bëriloo mbër yi yaa ngi dégg ci huis clos wala ñu xool mbooloo ma nu ñu koy wàññee ba làmb ji mën a am yaa ngi dégg mais il faut que loolu ñu épauler promoteurs yi comme ni ñu doon wax rek parce su loolu amulee defe naa ne ah saako bu deful du taxaw loolu mooy li war a nekk kon état moom mi nga xam ne moom moo exigé bu fekkee moom moo teg pour ñoo def huis clos defe mooy ñëkk a nekk sponsor bi nga xam ne moom mooy jàppale defe naa faw ñu tegal ko fa leneen Aziz nag moom li mu wax itam ah mënees na cee d'accord ndax bu ko neexoon tamit xëy na mën na yor société dugg ci leneen wala mu defee ko feneen waaye comme li la wax tamit loolu duñ mën a def lu rafetlu ko waaye daal man moom am na loo xam ne moom wax dëgg yàlla du ma neex te dina bëri ñu doon naqari maanaam bëri estat ñu ne kenn du dugg loolu beneen affaire la xullee loolu moom voilà boo kenn du seetaan si xanaa kay bu fekkente ne 10 war a dugg fexe 5 000 dugg boog ñu xool ni ñu respecté mesures barrières daal loolu doon na ma gënal te defe naa dina gënal ñu baree baree bëri waaye nag li ñuy wax rek ku amul la nga bëgg am la fa sës waaw loolu mooy li nga xam ne moom moo ci ne ba tey bu nu continuer ci mbir yooyu ak ki nga xam ne ni moom moo di Euh, ñoom ñoo di promoteur bi mel ni ki Pape Thialis Faye moom jàpp na ne ah état na leen laaj ñoom ni ñuy seen ay bid sa programme ak bu ko defee xam naa waxtaan mën a am moom moo jiite Leewtoo mu mel ni ka nga xam ne ne moom mooy jax tamit daa mel ni moom wiklu ba d' accord na ca tax ñu cay d' accord nag xëy na buñ demee ba si kanam lépp dina leer Khalifa Niang moom mooy président Tay Singa daal la mu xamal Matar Ba mooy ne ne waaw ah, euh, populisme lay def maanaam daal day jéem a wut ay mbooloo ay tur yu ci làmb ji waaye ni muy doxale jàpp na ne xëy na doxalin mu jaar ci yoon loolu nag waxu Xalifa ñaa la ah muy loo xam ne ah bu fekkente ne noonu la demee moom defe naa du lu gën parce que bu ñu defee tegee ngir benn affaire la nga war a def mooy fexe affaire booba tege ci aw yoon pour que mu mën a mel ñu ko soxla defe naa loolu mooy gën comme moom ni mu ko waxee daal loolu mooy waxi Xalifa ñaa tey ba tey bu bi sunu làmb écurie Fass ak seen taxawaay ci ñetti yi ñu génne daal lu taxawaay boo xam ne bu baax la boo xoolee 21 victoire 23 défaite un benn waaw maanaam daal écurie bi daal moom ah doy na waar daal dox ga daal xam naa demee tut noonu rétro 2020 Kaolack la yëglikaay bi dem tey mel ni la la fa gën a marqué nit ñi bokk na ci génn àddina Mor Nguer Pape Ndiaye médaille d'or na leen yàlla yërëm xaral leen aljana waaye bokk na ci tamit ki nga xam ne ni moom moo di doomu Kaolack jiite woon CRC bu Kaolack ñu xëy tey nommé ko mu jiite CNC bi muy Bira Sène loolu bokk na loo xam ne defe naa ne marqué na Kaolack waaye yépp waaw ñu leen di jaale ñi nga xam ne ñoom ñoo génn àddina ah di yàlla defal leen gudd fan wér gém defal ko bépp doomu aadama rek waaw loolu la ñuy ñaan buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moom moo di record record moom tey dafa ñëw seq waxtaan Papa Sow Papa daal ah waaw li ko marqué ci 2019 jàpp 2020 bi loolu ñëw na ci ak leçon boo xam ne daal jox na ko xale mbër yi mu mel ni waxtaan mu ngi ci biir yëglekaay bi Papa Sow ne tey ku mu jox leçon ci lamb war nga ko mën a déglu ndax it macha ah, mu ngi ci bopp ba tey di ko pratiquer te bàyyeegu ko xam nga te terewul saa yu ñëwee ci lamb di nga xam ne mbëri ñëw te itam ci ni muy pratiquer sport wala ni mu koy dundee da xam ne kii bu ñu encadré ko professionnel la defe naa kooku tamit waxam waras na ko mën a bàyyi xel Reug Reug moom New York la jëm ci marché gi yëglikaay baa na ko xëy wax moom record ah mu mel ni kon daal fi mu nekk ni moom xam naa rek comme ni ñuy wax rek day dem ngir gën a préparer boppam parce que nag dafa sumb ay sumb yu bëri parce que yëglikaay bi xam nañu daal le 24 février rëg-rëg mu nga jëm Singapour ci benn combat MMA boole ci combat ma guy gi ak yeneen yoo xam ne mu ngi koy xaar kon defe naa nag ah il mu jóg nag ci boppam ngir xool fa mu mën a jaar ngir préparer waaye nag MMA ba moom ak fu mën a jongantee daal bu ko seq daga doomu Sénégal bu dëkk fii ci réew ñu ngi koy ñaanal yàlla mu gañe ko bu dee Singapour ga mu di ko jongante ji yàlla na gañe ñoom ñi engagé combat bi may muy Bombardier ñoom ñëpp yàlla nañ ko gañe parce que adversaire dañ ko seqal dëkkuñu fi la ñuy waxee waaw noonu parce que loolu mooy li nekk euh, Cheikh mu jiite Lamsaar moom la record xëy tey andil ñu ko mel ne kii moom ak ay ñamu bokkal groupe maanaam président écrit ak école yi ñoom bégguñu ci rencontre yi nga xam ne boobu ba tey mu ngi am leen ci te wax dëgg yàlla xanaa loolu bu fekkente ne day boolewuñ leen ci war ta mën a nekk parce que ñoom ñoo jiite écrit yi mbëri yooyu mbëri yi génn di wax yaa ngi dégg am nañu ay président écrit écrit bu ci ne am nga ay sart am ay kayit am ku ko jiite am bureau kon defe naa itam ñoom président yooyu waras na leen a boole ci ñi nga xam ne nii maanaam ci xalaat bi nga xam ne moom mooy tax làmb ji jëm ci kanam wala mooy tax li ñu bëgg ñu am ko parce que tamit ay responsable lañu te itam écrits yi defe naa ñoom dañ ciy sonn financièrement di ci sonn kon defe naa itam wareesu leen a bàyyi ginnaaw bu fekkente ne noonu la demee parce que tamit ni koy waxee rek ku bokk ci gétt gi naan ci meew te ñoom ñoom ñoo jiite yi kon bu fekkente ne lu am la nañ ko jéem a rattrapé que olof a ko wax rek gars yi dañ ne bu ndox an baax fa des ñu déedéet nañu rootiwaat kon rootiwaat la def rek jëm leen ci bool ñu ñëpp ñu waxtaan parce que ñoom mënuñu cee génn loolu mooy li xam ne moom moo fi ñëwoon tey di béggee ñëpp di ziar ñëpp nañ ci dugg ak jàmm te itam lépp li nga xam ne naqari woon nañu wala mu nekkoon ay tis ci 2020 bi yàlla na ko fi yàlla jële te 2021 bi nekk at boo xam ni daal ak at ya koy topp ay atu mbégte lay doon a xéwal yàlla mën na rek comme ni ñu koy waxee na ko maam da baax doon waxee xulle ñu gën a yenente jàmm gën a tàppe xol yi parce que loolu tamit dina bokk si li ñuy dimbali dina bokk si li ñuy dimbali parce que boo xoolee àddina bi léegi ni muy doxee si ay jëf yoo xam ne ni yu kenn mënta xalaat la te lii yëpp xoolal ko yóbbee nit xool sama room nit rey ko wala xool sama room nit soxore ko iñaane ko yooyu ak yeneen yoo xam ne gërëmee su ko yooyu yàlla gërëmu ko yooyu bu yàggee dina dem ba mën nañu dugal sax ci yenn yoo xam ne nii kenn du maanaam du doon yu baax yëpp nañ ko nañu gën a defaraat daal ci sama bopp nag laa koy commencé ndax olof na mbay ci sa wewu tànk nañ gën a defaraat jikko yi yeneen te jàmm di waxante lu baax di ko defante te moytu di yàqante yooyu yëpp amul benn njariñ yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu saxadatu daara yi ni di jaalewaat waa Sénégal parce que ay kilifa dañ fee génne àddina démb comme ni ñu ko waxoon ci Seyda Mariama Niass ku mel ni maire Dalif Dalifort Idrissa Diallo ku ne xam ne dafa wuyu boromam ak général Nia mi nga xam ne nii ku ñun xamoon nañ ko bu ñuy gën kii ci jamono Ablaye Wade ministre de l'intérieur ak yooyu jiite na fa ay kuréel yu nekk na fa ambassade ñoom ñëpp yàlla leen yàlla xare aljana ci yërmandeem yàlla mën na ko yàlla na ko def di béggee ñëpp di siyaar